naataal fukk ak benn ci jamono yooyu su nit defaan bàkkaar day rey ab xar saraxe ko ngir jégalu yàlla jote ko boppam sarax boobu ngir fàttali ko ne yàlla buggul bàkkaar lañu ci jublu woon wante saraxu xar boobu misaal la woon ci sarax bu mag bi waroon a ñëw muy sarax boo xam ni yàllaa ko defal boppam sarax boobu mooy faar bàkkaaru bépp jaam bu ko gëm yàllaa ngi nam mën a yónni Jésus ci suuf ngir mu doon sarax bi faar bàkkaaru jaam yi yàlla xamaloon na li mu namm def yonent yu bari ñu bindoon ko ci biibul bi waxoon nañu ci Jésus kii mooy saraxu yàlla bi teggi bàkkaar ci àdduna